bu fekkente ni bailleurs yi dañoo am seen kër ne ñoom dañ koy louer temps par exemple 200000 état bi ne leen 150000 ndax bu leen neexee mën nañ koo tëj ñaari at ñetti at te bu boobaa day euh, fekk ni demande bi day gën a yokk ndax nit ñi duñu dem ba tàyyi sax ne finalement bàyyi ma dem jël 200000 yi ndax prévoir nañ loolu waaw loolu loolu loolu kiiwul ah, parce que dafa mel ni tey boo nekkee jaaykat ceeb mhm. nga yore sa ceeb nit ki ñëw nga ne ko jaayumal refus de vente la yoon day dal sa kaw mais nuñ koy xamee non moom laa lay expliquer xam nga bu fekkee ne c'était c'est des maisons à mos nañ ko louer benn yoon nit ñi xam nañ ne bii dañ koy louer hmm. nga téye sa kër nga ne non luyuma la loolu yoon day dal sa kaw parce que yoon prévoir la bon boo tabaxee bees xam nga xamuñ ndax da ngay louer wala doo louer hmm. mais yow amoo intérêt tabax bees ba pare tëj ko di xool ah, bu fekkee dafa am yeneen source de revenu waaw bu fekkee nga am xaalis bu bare bare bare bare ah, mën na nekk voilà mais hmm. mais loolu loolu hypothèse d'école la mais ñi xam ne dañuy tabax yëpp li indi jafe-jafe bi mooy ñii tabax ñu ci ëpp. Mm. dañ bëgg xaalis de trop. Mm. parce que bu fekkee ne yow li ngay tabax dafa yokk 44 virgule 4 pour cent yow nga yokk 256 virgule 06 pour cent mais. Mm. foqale romb loolu. c'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que c'est inimaginable. c'est euh, euh,